Baye Max nuyu naa la. ñu ngi lay fay. Euh, ñu gis làmb dañ koo tëjoon ba ko mais amateur yeeg mbër yeeg supporter dafa mel ni dañoo namoon lii. waaw parce que dañ koy dund. ñu ngi ko tëjoon la 14 mars mu ubbiwaat mars un mu doon sa gagne-pain ñenn ñi di ko yaakaar amateurs yi di ko dund muy seen passion nga xëy tëj ko dafa metti lool. ndax làmb dafa yaatu ginnaaw ñi ciy tudd dafa bëri te yow mi ko tëj weeru dee nga fayu moo tax dama daan wax suñ ne lëree garaaw ma ne am na ci ñum gën a garaaw mais tey bi biñ ko ubbee moo lay wan dañuy tudd làmb làmb dañ ko moom suñu yëfi bopp la. ñu gis promoteurs yi euh, lutte avec frappe lañ doon tijjee mais bi bi bi ñu ubbee làmb ji ba léegi promoteurs yi ku ci nekk ngi daw di def lutte lutte lan la secret bi lan la. secret bi mooy. moo gën a yomb a organiser doo waxaale ak ménager da ngay teg benn mise yow bu droit d'organisation ubbi say buntu jaay mbëri ñëw bindu c'est que dafa gën a yomb a organiser lamb day laaj waxtaan ménager bi nga waxtaan ak moom dem di régulariser combat bi écrit affilié moo tax lii daa gën a gaaw mais am nay combat yu bëri. d'ailleurs combat yi taxaw xajul ci saison bi mais par exemple moo gën a gaaw da nga yóbbu sa mise rek yóbbu sa droit d'organisation. ñu gis la ci staffu caalis euh, production nga bokk mais ñu gis kii di Boy Niang ak tafaatin ñoo nañu andi ambiance euh, neexal nañu fii naka nga gis de forme yi. ñoom ñaar ñëpp bëgg nañ combat bi ñoom ñaar ñëpp pare nañ te ku ci ne xam nga ne boo daane am na fu la yóbbu mais waxoon naa caalis ne ko. combat bi lu muy jege di gën a diis ndax day combat jànq tey su ñu indi wutoon expérience làmb ji mën naa toj te nag lu muy gën a jege rek di gën a diis importance combat bi moo mel noonu combat bu metti lay doon. mais ñu gis ne ba saison bi ci yéeg léegi benn boobu doo ngeen ngeen ngeen ngeen jotoon taxawal ci ngeen yem wala yéen a ngi xool seen xel ngi ci yeneen. saison bi moo xatoon wóorul woon ndax làmb dina amam du am kon mënoo woon jël sa risque rek sànni sa xaaj ta xamoo kañ la ñuy bëree mais am na yeneen i xalaat bu bu bu bu dat amee ñu am temps mën nañu tëgg yeneen i combat ndax nag làmb moom tëgg ko yomb na fi xaalis bi nekk rek kon daal bu ñu amee dat mais mënoo sànni sa xaalis nag xamoo ndax di nga foo ko tëggee mais bu amee dana am yeneen i journée incha allah. mais mais jàpp ngeen datu combat bi. le 25 juillet lañ jàpp bind nañ lettre yóbbu CNG xalaat nañ ne dinañ ci jot bu ko defee semaine bi wala ci topp ñu régulariser ko. maa ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di jërëjëf.